jërë ngeen jëf mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi euh, ñu dellu am mbégte dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi comme ni ñu koy defee samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak euh, Abdou moom Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekk ci wàllu machine bi mbokk tey ñu invité Alla Dieng mi nga xam ne mooy directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal sëñ àll ñoo ngi lay ziar. sëriñ Abdou Khadre ñu ngi lay delloo ziar di. ñaan kàddu yi ñu wax nekk luy jariñ réew mi ci wet gu nekk nag ci mbirum économie surtout waaye mbirum situation politique réew mi euh, lu jar lu jar a wax la ndax luy ay di njàmbat. jërëjëf euh, Serigne Alla Dieng bu ñu tuddee UNACOIS waa yeesa rek xel yépp day dem ci commerçant yi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllum jënd ak njaay. Euh, ñu waxtaanee dund gi nga xamante ni tey dafa yokk ba jéggi dayo ndax sénégalais yu bari aussi ñoo ngi tuumaal nguur gi waaye tamit ñoo ngi tuumaal yenn commerçant yi nañoo yokk yokk goo xam ne euh, teguñu ko fenn loolu dinañ si daal di euh, waxtaan ak yow lu mooy loolu tamit dinañu waxtaan secteur privé bu Sénégal bi nga xam ne euh, yuuxu nañ démb wax jafe-jafe yi ñuy ñi ñu dund dinañu wax tamit ci lu jëm ci situation réew mi wàllum politique ndax yow da nga jiite benn mouvement bu tudd UFC union force citoyenne dinañu wax ci euh, tolluwaayu réew mi assemblée national ndax même yéen euh, secteur privé bi yéen a ngi wax ne assemblée nationale yenn loi yi bu ñu koy voté dañ leen see war a bàyyi xel ak euh, yu si aju fi ñuy dooree li nga xam ne mooy waxtaan mooy démb ci àjjuma ji dañu gis organisation yu bari ci société ci secteur privé bu Sénégal doon wax ci stabilité politique bu réew mi waaye stabilité économique bu réew mi wax nañ ci crise politique bi euh, seen ndaje moomu lan moo wundoon démb ngeen yëkkati seen kàddu. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim euh, euh, delluwaat nuyu ñëpp effectivement démb ci ajuma ji def nañ benn déclaration waajal ga nag yëg naa ko ndax fekke naa ci yu bëri ndax xamoon naa ko ndax suñu président mu nga foon Cheikh Cissé président national mu nga foon ci. te déclaration daf ñu engagé parce que dañ cee liggéey alors constat bi nga def moom la ñëpp def muy situation politique situation économique réew mi surtout d'abord balaa politique situation économique réew mi euh, nga xam ne jëndkat yi consommateurs yi ñëpp a ngi jàmbat waaye jaaykat yi aussi ñuy jàmbat euh, man dédouané wu ma état dédouané wu ma yi. li ci responsabilité état ñeme naa ci dut baaraam li ci responsabilité commerçant ñeme naa ci dut baaraam. dana ñëw ci loolu mais secteur privé bu Sénégal démb dañu wax ci lu jëm ci même assemblée nationale yenn loi yi euh, wax nañ sax ci lu ci lu mel noonu wax nañ ñoom ci seen i jafe-jafe en fait entreprise nationale. secteur privé wax nañ ci assemblée nationale bi ñu war a samp waaye wax nañ aussi ci gouvernement bi ñu nar a teg. li ñu séntu ci assemblée nationale wax nañ ko député yi am na ay projet de loi yoo xam ne dañ ko souvent duñu waxtaan ak yi. ñu ne dorénavant nag bëgg nañ député yi opposition pouvoir yi ci yem parce que député député la ku ci nekk assemblée balaa projet de loi bu jógee ci gouvernement bi ñëw dugg seen loxo balaa ñu koy wotee bu ñeelee économie réew mi rek nañ ci waxtaan ak acteurs yi dana rafet dana leen yombal seen liggéey dana leen orienté dana leen jox ay chiffres ak ay wax yu wér yoo xam ne bu ñu ci sukkandikoo njuumte dana néew du mën a njuumte daam mais njuumte dana néew mais lu tax jéemu leen a wut euh, ay représentants ci assemblée nationale jéem nañ ko mais dafa sottiwut waaye jéem ngi aussi dafa am noo koy defee secteur privé mënul def list ne day dem assemblée nationale loolu ci benn entité xanaa ñoom ñu def benn par benn dugg ci list comme euh, parti wala coalition yi parce que dañ ne parti politique muy so muy sollicité suffrage yu sénégalais yi secteur privé nag beneen statut la yore ndax organisation secteur privé récépissé lay am parti politique récépissé lay am waaye parti politique li ko yëkkati mooy jot ci nguur gi secteur privé li ko yëkkati mooy activité économique activité développement mbirum investissement mbirum lépp jëm ci koom-koom ku mel ne man bëggoon na maa dem créer sama liste mais dañ ma ci jëlee dafa am ñu ma convaincre ne ma toogal ndax nangam ak nangam du ma mën dugg ci détails yi waaye ça n'exclut pas que ëllëg élection yi mën di am élection locale élection député élection présidentielle am nañ liberté bokk ci mais en tant que candidat indépendant. waaw ah, mais mais mais Alla Dieng démb man ci seen waxtaan yu ma dégg euh, dama gis ne dafa mel ni secteur privé bi dañoo bëgg a wax ne nguur gi boolewuñ leen ci ni ñu yoree réew mi te ñoom am nañ solo ci réew mi. non boole nañ ñu ci mais boole gi dafa des wala boole gi euh, jaarul ni war a jaar loolu li ko waral mooy. dañoo gëj sax toog waxtaan ak président la République. mais ñàkk loolu moo ñàkk boole gi. waaw déglu sëñ bi boole gi am na mais bu ñu neexee façon bi mën nañu naqari wala mu wala mu wala mu ñàkk doy loolu laa tax mooy waaye boole gi am na. boole gi mooy am démb bi ñu defee bi ñu defee suñu conférence presse wax nañ li ñu war a séq diggante ak exécutif ak li ñu war a séq diggante ak assemblée nationale. li ñu war a séq diggante exécutif mooy concertation permanente mais CPI bu am dañ ñuy woo. bërëk démb président woo nañu doon doon décoré président président Cheikh Cissé bu UNACOIS SN mais jamono yi aussi woo nañ ñu doon waxtaan ñu ci affaire yu njëg yi donc léeg-léeg mu am mais concertation bi daan am diggante ñu ne Abdou Diouf secteur privé nga xam ne fekk naa am diggante Abdoulaye Wade melul ni mu war a mel diggante ak ñun a Macky Sall parce que CPI mooy ci lañ daan daje ak moom par exemple Diamniadio wala Méridien président mais nam daan doxee bu mujj bi sax da mujj mel ne fora maanaam mel ne mel ne show médiatique parce que nooy woowee secteur privé yow exécutif ak sa gouvernement nga woo bailleurs woo banques yi woo institutions internationales yi foofa dialogue bi du du dem ni war a demee parce que secteur privé ak exécutif dañoo war a jàkkaarloo ñoom kese ñu xam ni ñu toje si bopp janax ci wàllu économie parce que ñoom ñoo ñoo ko seq loolu amul ni war a amee donc démb rappel la certes danañ soññiwaat nguur gi mu xool suñ dox na diggante ak ñoom wala façon bi ñu jëflante ñu changé ko mais façon bi am jëfandikoo jëfandikoo gi am na mais demul na war a demee loolu laa bëgg a wax. mais ma euh, man li ma déggee ni nga wax ni euh, wax ji tamit dafa maa xaw a jaaxal ndax yow nee nga taxawaay bi Abdou Diouf amoon ci secteur privé bu Sénégal Macky Sall amu ko nee nga taxawaay bi Abdoulaye Wade amoon ci secteur privé bu Sénégal Macky Sall amu ko kon Macky Sall euh, moom dafa mën ñoo wax ne tey moo gën a sàggane secteur privé que président yi fi jaar. noonu nga radicalé moom noonu laa def man du ma ko def. xam nga da ngaa radical daal di conclure noonu dama ne la jaxasoo gi ak waxtaan waxtaan mi ngi am mais gënul ni ñun gënuluñu wala demeewul noonu. ay déet déet yàlla radical la mu fi di. non non non non da nga da nga bëgg ma ne. yow li nga wax laa la waxal rek. waaw non non ni nga ko waxee ni nga ko da ko wax ni nga ko bëggee dama ne la. déedéet ni nga waxee yow. waaw déglu ma dama ne la waxtaan wi am na mais gënaluñu façon bi wala des na loolu laa bëgg a wax mais néew ma amut. waaw ah, mais waxuma loolu dama ne yow da nga wax ñetti président moo am. Abdou Diouf waaw non dama la mais da nga tudd ñetti président. Ah, ñetti président yi nga tudd Abdou Diouf nga tudd Ablaye Wade Macky Sall. yooyu fekkee yooyu nga fekkee. nee doon doxee. gisoo ko Macky Sall doxee ko ci secteur privé bu sañoon noonu rek. wala mu romb ko sax. mooy ko. non ko mooy melu ko sañ aussi li nga wax. dama ne la damay baamtuwaale ma dama ne la. Euh, yow da ngaa bëgg wax ne jëflante gi amut. mais dama ne jëflante gi amut waaye mais jëflante gi am na. mais façon bi bu ñu sañoon mu amélioré wu rek loolu laa bëgg a wax. waaw foofu man suñu sañoon mu amélioré wu bokk ci gàttal léegi yem nañu am foofu rek. waaye jëflante bi Abdou Diouf doon jëflante ak yéen ak Ablaye Wade Macky Sall jëflante. am na droit changer. mais bu changé te dëppoo ñu bëgg am nañ droit ko ko du obligation Macky Sall doxale ni Abdoulaye daan doxale du obligation Macky Sall doxale ni Abdou Diouf daan di que CPI Abdoulaye Wade moo ko daan def Macky Sall dafa ñëw continuer ko mais ni régulé woon jamonoy Abdoulaye Wade régulé woon jamonoy Macky Sall xam nga loolu kon mën naa am sax ajuwul ci Macky Sall am na manquement kon non mais manquement yi ça ça vient de qui xam nga yow da nga bëgg ko imputer Macky Sall dama du ma ko imputer Macky Sall. loolu ànd mais Macky a nekk moom. mën na ah, bi mën na leneen leneen loolu laa mënul maanaam nga jox fët bi mag teg ko ci ko Macky Sall loolu yow ñeme nga ko mais ñoom ñoom woo ko dama ko def. d' accord waaw d' question précise. allez-y. Euh, secteur privé bu Sénégal. Hmm. ne ko Abdou Diouf joxe woon gëdd. Hmm. Ablaye Wade joxe ko ko gëdd. ndax Macky Sall joxe na ko gëdd noonu waaw wala déet. Macky Sall jox na secteur privé gëdd mais suñ sañoon mu amélioré wu parce que jox na bopp bu ëpp secteur privé international. ma tontoo si question bi. Abdou Hadj nag man dama xamul lan nga bëgg. dama xamul lan nga bëgg dama ne la Macky Sall jox na gëdd secteur privé sénégalais mais suñ sañoon mu amélioré wu ndax jamono dafa changé mais li xewoon jamono yi Abdou Diouf ak li xewoon jamono yi Abdoulaye jamono ji sax moo changé ba wute. d'accord waaw li ma ne na ko amélioré te amélioré mi ngi am buñ ko nee toog di waxtaan dañuy toog di waxtaan mais fréquent wul. d'accord mais yéen mais yéen seen xalaat ci économie réew mi ak ci crise euh, crise mondiale bi am ndax yéen seen xalaat tey euh, gouvernement bu Sénégal ñoo ngi leen di déglu. waaw gouvernement bu Sénégal gëj naa am ndax gouvernement bi fi nekk nii jeex na la preuve ñetti weer a ngi ne genn wàll defuñu conseil des ministres ñi am na lu ñu séntu ci gouvernement bële gouvernement bi nag am na lu mu def mais am na lu bëri lu des secteur privé sénégalais na mais am na ci loo tax ma la wax sànq naan la bu ci amee responsabilité commerçant naa la ko bu ci amee responsabilité état dinaa ko mais lu ci bëri du ci ñoom. du ci état bi du ci commerçant mais conjoncture internationale dinañ ñëw ci. commerçant yi euh, ak lu jëm ci wàllum njëgu yokk yeeg kan mooy sam part de responsabilité mais dañu bëgg a wax rek ci secteur privé de manière générale euh, ci sa Sénégal euh, beneen bi mooy yéen mm-hmm. secteur privé yéen démb mm-hmm. seen wax mm-hmm. da ngeen a jàpp ne réew mënut a dox sans secteur privé jàpp ñu dafa am dafa am waaw léegi da yéen da ngeen secteur privé réew mënut a avancer sans secteur privé nee ngeen tamit il faut que président Macky Sall jàppale leen pour pour ndaw ñi mën a am liggéey bu baax a baax a baax. dangeen ngeen a sentir ne euh, seen gëdd dëgg amul. Euh, sentir nañ ni cër bi ñu war a jox des na te itam ni ma ko wax sànq du ma imputer imputer directement Macky Sall mais damay imputer sax banque yi damay imputer yeneen euh, partenaires extérieurs yi exemple yu naa ko yeesal tey am na lu toll 85 projets d'usine d'unité industrielle yoo xam tey su doon liggéey minimum quinze mille sénégalais mën nañ ci liggéey te loolu demandé wul mi ngi demandé mooy de dix milliards mais mi ngi bloqué ci banques yi xam nga kon loolu kon Macky Sall bu ko neexee ne man yëguma ko wala du man banque yi la ndax banque yi Macky da ci am wàll nguur gi da ci am wàll mais yeneen privé dañ ci am wàll par exemple dafa bëri ay ay facteurs yu sooxeel économie Sénégal bala may tudd économie Afrique wala may tudd économie bi ci gàttal secteur privé sénégalais prenne pour jouer plein rôle waaye rôle bi des na ndax ay moyen yu ajul ci moom. am na ci lu aju ci exécutif am na ci lu aju ci financement am na ci lu aju ci institution internationale am na lu aju ci collaboration relation bilatérale ak relation bitim réew am na lu aju ci conjoncture internationale. parce que Abdou Khadir ñu bëri ñu bëri war nañu seetlu dollar tey fi mu xam nga ñaata la tey 660 francs il y a 3 mois ci kanam 515 la woon te tant que dollar a ngi yéeg rek. situation réew yi néew doole yëpp di gën a di gën di gën am empiré wu léegi nag secteur privé pare na projet jouer ci rôle mais dafa am ay facteurs blocage quelque part lenn li état bi la lenn li gouvernement bi la assemblée nationale gis nga li leen li ñu leen yàpp dañu leen a yàpp pour député législature bi ñu ñëw ñu am cër bu ñu jox secteur privé bala ñuy voté ay loi la ci affaire économie ñu waxtaan ak ñun. loolu dana ci bokk li yéwénal mbir yi kon waa eggale. Uh-huh. waaw jërëjëf uh, Alla Dieng yow yaay directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal uh, secteur bu Sénégal. ak ñi nga xamante ni tey ñooy euh, secteur privé euh, étranger yi maanaam entreprise étrangère yi. Mm-hmm. ak entreprise nationale yi. Mm-hmm. Euh, yenn kàddu yi sax ñenn ñi dañuy jàpp ne discrimination la wala wala stigmatisation la. Mm-hmm. est-ce que gisu leen ne état bi entreprise étrangère yi la gën a jox cër wala moom la gën a bàyyi xel. état état bi en commençant par Macky pour le PSE jox nañ bopp entreprise bitim réew. au détriment entreprise yi nekk ci réew mi am na lu ñuy jox waa bitim réew te waa réew mën nañ ko liggéey am na lu ñuy wax waa bitim réew loo xam ne waa réew mënuñu ko liggéey par exemple lu mel ne terre bi wagon yi moom kenn mënu ko defaree Afrique waxantuma la ak Sénégal kon bitim réew lañ ko mën a defaree waaye travailler par exemple euh, raay yi ak yi ko téye ak yeneen batiment yi deme noonu am na entreprise yu nekk ci réew mi tool ak cinq entreprise yoo xam ne nii jox nañ leen ko ñoo ko réaliser mais des na mooy marché bu mag dañ koy jël jox ko ku nekk bitim réew kooku jël ko sous-traité liggéey bi dëgg-dëgg sax ay entreprise sénégalais ñoo koy def te mais kële moo gagné bi tandis na am am na marché yoo xam tey soo ma ko joxoon man man maa wut sama partenaire yu nekk bitim réew loo fi liggéey day des ci réew mi waa entreprise bi jóge bitim réew nga jox ko marché lu mu fi liggéey bénéfice dina ko yóbbu fii ay ay ñam ay ñamu bët lañ leen di jox loolu loolu am na kooku kay constat kooku kay waxuma la am na dama ko dénoncé ci kanam président de la République dama la jox exemple rek man am naa capacité réaliser centrale à gaz valeur 300 milliards te sama partenaire mën nañu financer 80 pour cent. waaw léegi lii moo tax sànq ma ne la Macky Sall dafa sàggane secteur privé bi nag. mais sàggane na ko mais am na lu des maanaam am na lu mu leen jox mais doyul. xam nga sàggane moom dafa mel ne da nga ko wan ginnaaw waxuma loolu man yow yaa ko bëgg a wax mais dama ne la mi ngi jëflante ak secteur privé Sénégal mais dafa des dafa des mooy bu ñu doon toog di waxtaan amélioration dana am. loolu laa la wax loolu kay je répète ça. Ah, d'accord mais xam nga tey euh, boo xoolee. Mhm. presque économie réew mi réew yu bari boo fa demee. Mhm. économie réew ma day nekk ci doomi réew ma comme ni nga ko waxee. sànq lool loolu nag du nekk aussi 100 pour cent de. waaw non am pourcentage bu mag bu ñu jox réew mi. waaw waaw loolu nag bëgg ko. waaw léegi sëñ yow est-ce que jàpp nga ne bu boo génnee Afrique. Hmm. am na benn réew moo xam ne jël nañ économie réew ma jox ko ay doomi réewum jàmbur. déedéet jëluñu bu dee Sénégal jëluñu économie jox ko dafa am lu ñu ci jox waa bitim réew am lu ñu jox waa réew mi. man nag damaa jàpp na li ëpp ci économie bi waa bitim réew lañ ko jox surtout français. am na lu ñu leen jox am na lu ñu jox waa réew mi mënuma def pourcentage ba nga ne li ëpp mënuma ko mais dama ne am na lu ñu jox habitude am réew mi lu ñu jox réew mi te réew mi man ko dañ leen ko war a jox lu ñu jox habitude réew te réew mi man ko a jox waaye am na loo xam ne nag réew mi dañ leen ko war a jox te euh, mënuñu ko dañ ko war a jox bitim réew exemple exemple entreprise Sénégal léeg-léeg ñu jox leen du ñu respecté délai quelquefois ñu jox leen du ñu am moyen financier yu koy réaliser loolu boo état bi xaymaa ba ba xam ko am na lu ne ne ni ñii ñii ñoo gën a doy mais loolu bu yàggee aussi dina feeñ ci économie bi. donc ah, eh, li mën a may entreprise étrangère may entreprise ñu fexe ba mu ba mu ñu koy may ci délai ak ci accompagnement parce que aussi kenn jàmbar amul ku ñu dimbale am kuñ ah, jàppale am waaw jàmbar amul kuñ jàppale am léegi nag état moo tax ma ne la concertation manqué ma a loolu concertation bu doon am régulièrement gis nga foog con man concertation yi ma fekk Habib Thiam sa jiite na ko fii ci ministère affaires étrangères mais saa suñ ma saan pare bu ñu génnee ku nekk sa sa sa sa yéene ci réew mi day ñëwaat ndax da day mel na day mel ne da ngay tàmbaliwaat lu bees loolu nag moo amul actuellement ni war a amee diggante ñu ne Macky Sall. sëñ Alla. Euh, yow sa say biir wax sànq dama ne la ñenn ci secteur privé bi dañoo njort ne réew mënut a dox sans secteur nga ne ma. Euh, amul njort loolu moo mën a am waaye léegi yéen ñi nga xam ne yeneen secteur privé bi tey réew mi mënut a dox sans yéen te ku yore réew mi ma concertation amul mais nan la réew moomu di doxee nag. sa yàlla léegi dañuy ñaan nag concertation am rek Abdou Khadre réew mi ngi dox mais ni mu doxee dafa yeex. xam nga loolu théorie maa ngi dox mais ni muy dox dafa yeex mais bu conservation doon am ñu déggoo ci problème yu bëri problème yu bëri néew parce que problème bu ne da trouver solution lii mooy seen problème lan ngay jo joxame yi di am régulièrement ñu nag exécutif jeex na loolu rek laa ba wax nay am rek parce que bu amee concertation si concertation non seulement ci nañu wax suñu problème mais Macky mooy jël décision parce que consultation soo am diggante ñu ministre yi ministre yi suñu paree xam nga lu ñuy wax danañ ko jébal président de la République léegi président de la République lañu bëgg di jàkkaarloo moom au moins 3 mois yi nañ jàkkaarloo ñàkk mais solution dana am wala fukki problème bu tewalee ñetti solution la wala ñeent solution wala juróomi solution loolu laa wax ba léegi nii de ba ma tàmbalee ba léegi léegi léegi euh, yéen secteur privé bu Sénégal damaa gis ne euh, seen doole bëriwut li tax seen ma jàpp ne seen doole bëriwut mooy da ngeen a euh, desee ànd fu ne créé ngeen fa ay organisation te euh, ngeen même bu dee créé ngeen fédération wala lu leen lëkkale yéen ñëpp xaajaloo bu mel noonu ñàkk gis-gis yi lu waral loolu. xaajaloo gi mun a ñàkk xajaloo gi mun ta ñàkk parce que ñu mënul ànd <laughs> dañuy xaajaloo ànd gi nekk benn dafa jafe parce que ku ci nekk da ngaa beru liggéey ba am sa aslëf am sa entreprise am sa boutique am say magasin am say société ñu àndandoo suñu àndandoo am na façon doxalin boo xam ne nii ñii mën nañoo gën a ànd ñii ñi gën a àññi pourquoi scission di am ñaata parti politique moo am ci réew mi te pourtant organisation mu ñu fukk donc loolu du problème waaye nag léeg-léeg ñu bokkandoo ay intérêts yoo xam ne nii. jubawul euh, sëñ bi mais juboo. Euh, waaw suñu àll loolu mën nga ko wéddi nag. non buñ buñ jubóowul woon duñu bokk benn déclaration démb. mais am mais non dama ne am nañu ñëw mais dama ne buñ jubóo amul woon mais ñi ñëw bu jubóo amul woon de commerce te am na ci droit pourquoi parce que organisation yi bu chambre de commerce doon def ni na mu waree moo tax organisation dama ne jubóo lu tax suñu borom daganal daganal tàggali ko bëgg ko waaye daganal na ko ni ay nit dañu ànd ba yàgg ñu tàqali ko de donc damay dellusiwaat daal ne am na réew yoo xam ne ni benn patronat moom ban Burkina laa jógee barki dem matul 15 jours benn organisation lay am Burkina ni amee doole te ak am nañ doole économie benn organisation mooy muy euh, conseil national du patronat burkinabé mais Sénégal chambre de commerce rôle bi war a jouer bu ko defoon benn organisation du judd waaye organisation bu juddoo aussi léeg-léeg dañuy dajee fenn démb daje nañ wala boog juróom sur fukk juróom-ñeent yi wala juróom-ñaar yi loolu sax c'est nag. Euh, euh, kër ak kër da nga gis ñoo xam ne ñooy bokk ndey ak fay ndey bàyyi par duñ bokk benn néeg bu fanaan wala ki xëy jëm fi ki di liggéey lii kii def lii kii def loolu moo ko àdduna ñoo ànd ñii defuñu problème. kon nag kon jàpp ne Serigne Boubou deful liggéeyam correctement. déedéet Serigne Boubou jiitewul chambre de commerce union des chambres de commerce la jiite te union des chambres de commerce bi juddoo yàggul. kan moo ko jiite. kanoo jël lan. union euh, union non moo tax yow comprendre lu ma xam région bi dafa am chambre de waaw waaw léegi Serigne chambre de commerce la jiite. waaw non non dafa jiite chambre de commerce Kaolack jiite union des chambres de mais chambre de commerce am na. chambre de commerce Dakar ci union bi fi mu chambre commerciale yi bokk ci union bi. man man dama ne. waaw union des chambres euh, du commerce euh, national. ma ne Serigne Mboup deful liggéeyam bon. waaw dama ne la. waaw Serigne Mboup moo jiite. union des nationales de chambre de commerce yi nekk Sénégal moo leen jiite kuréel gi leen ëmb moo leen jiite waaw. léegi nag benn région nag bu ko neexee mën na see bañ a gis boppam. union des chambres de commerce bi mu juddoo yàggul. balaa muy am chambre de commerce Dakar moo am yaatu lool ndax mi li muy capital bi. mais dama ne chambre de commerce Dakar boobu liggéey a bu fekkoon mi ngi koy def benn organisation parce que xaaral ma expliquer rek organisation yi dañoo judd ginnaaw chambre de commerce chambre de commerce moo leen jiitu parce que chambre de commerce Gorée ak chambre de commerce Kaolack ak bu Ziguinchor ñoo jiitu ci Sénégal bi ñu amee indépendance. waaw mhm. léegi. nee nga chambre de commerce de Dakar. waaw kooku deful liggéeyam correctement. non non dama dama ne chambre de commerce ci boppam. bu doon def ni li mu war a def mu def ko organisation du judd lool laa wax. loolu nag moo jiitu chambre de commerce Dakar moo jiitu chambre de commerce. léegi waaw. Euh, sëriñ bu mi jiite union des chambres de commerce. union des chambres de commerce. chambre de commerce Kaolack. du Sénégal ak chambre de commerce bu Kaolack. taxawaayam dans tout ça ndax gisuñu ko si ndaje mi. non moom ñëwul am na droit ñëwul région bi tax ñëwul aussi moom moo ko xam. moom loolu moom na ko assumé. ba pare liir naa ci presse bi nee na euh, CNP coquille vide la. waaw loolu waa CNP dinañ tontu parce que bay di añ mi wax démb waxul ci turu CNP wax ci turu organisation ya fa daje yëpp léegi nag ñoom danañ tontu man comme bokkuma CNP ma ci tontu. man ni naa ko yeesa laa ah, bokk. xam nga loolu mooy xaajale ko seen biir. waaw mais xaajale ko mënul ñàkk Abdou Khadre xaajale ñàkk mais mais am na loo xam bu xasee ma cëpp ni jonn mais buñ paree ku ne delluwaat si nekk loolu mënul ñàkk moog àdduna ñaar la. d'accord euh, bu bu leen président doo recevoir te ñëppay dem. xam nga wax baax. waaw léegi nag barki dem bi président di dem Berlin ñoom ñëpp la yóbbaale boobu Mansour dafa ànd ci ñoom ñëw donc xaajale ko ñàkk parce que jàpp mais doomu aadama ma la yàlla bind noonu waaye téewul nag léeg-léeg intérêt na cëpp ñoom ñëpp ñu dajee ci intérêt boobu. loolu am na si bisimilah. waa MEDES ñëwoon nañ. waruma sax ko laaj ko sa patron. mais am na bu fi bu fi nekkul bu fi nekkul am na représentant parce que gis naa gis kii bi gis naa waaw bu fi ñëwul moom bu fi nekkul am na représentant. waaw donc te moom aussi il est au cœur du patronat. ok Mbagnick Diop waaw. Euh, jërëjëf euh, Alla Dia yow yaay directeur exécutif bi UNACOIS Yeesal léegi. Mm-hmm. Euh, situation dëkk bi ak njëgu yokk yi. Mm-hmm. Euh, lan moo ci sa xalaat ak lan nga jàpp mooy solution bi. solution bi euh, subvention ci la mais subvention mënut a wéy parce que nguur gi mënul subventionné produit yëpp même subvention mujj bi sax ñetti produit la concerné woon ñu bëri xam fàtte dañ ko fàtte sukkar diwlin ceeb rek la concerné woon te ceeb bi sax ripaat yi la ñu subventionné 32 francs le kilo. mais am na réew yoo xam ne nii bu ñu produire seen seen ay banque dañ leen accompagner réew ma di subventionné exportateur di subventionné producteurs yi loolu moo tax léeg-léeg nga gis benn produit bu jóge bitim réew ñëw Sénégal concurrence produit bu ñu defaree fii ci wàllu qualité sax ci wàllu njëg maintenant njëg yi yokk gi mu yokk malheureusement am na ci loo xam ne ni ci nguur gi la parce que notre pays ne vit que de taxes et d'impôts malheureusement Sénégal euh, train de vie état bi ak budget bi yëpp taxe ak impôt moo koy surtout douane moo koy alimenté ak en dehors aide bilatérale wala aide multilatérale waaye conjoncture internationale am na wax naa ko sànq dollar te yéeg na yéeg goo xam dafa jéggi dayoo te buñ ne Covid wala ñu ne guerre russo-ukrainienne ñëpp daal ne waruñu jël lépp takk ci ñooñu. mais c'est la réalité nag teg ko ci mun a ñàkk. am na loo xam ne seen da yow yow sa xalaat nga wax. sa non sama xalaat de. lu bëri la waaw dama ne la dama ne la da posé nga ma question naa tontu bu la nee nga man ma man débat wu ma ak yow man fi ne nii mais sénégalais laay wax mais question bi ngay tontu nag dama si am xalaat. waaw léegi. ndax boo tontoo loo xamante ni man am naa si xalaat dama lay wax li mooy sama xalaat. léegi da nga may ma eggal man tontaguma la sax. dama ne. guerre russo-ukrainienne ak Covid bi suñu waxee ñu ne ils ont bon doo mais malheureusement aussi c'est la réalité parce que transaction internationales yi am ci àdduna bi yépp dollar lañ koy defee te guerre Covid moom daanaka mu ngi woon ginnaaw donte sekkal yi des na ba léegi nii mais dama ne bitim réew laa la wax ñëdd ak njaay import export yépp ci dollar lañ ko defee te tant que guerre bi arrêté wul njëgu bari pétrole day yéeg te su yéeg day ànd ko dollar di yéeg te su dollar di yéeg euro di gën di daanu te su euro di gën di daanu CFA di gën di loolu nag. la ñuy transaction internationale produit yooyu moom la ñuy indi ci réew mi ñu koy consommé mooy importation yi mooy li ñeen di exporté ñu ñu koy importé mais loolu su fekkee ci dollar la aju njëg yi bu ñëwee. fii moom ba mu yokkee yàggul nag. sëñ bi il y mois dollar 515 francs la. njëg yi plus waaw même bu dee loolu sax. kon dama naan la Covid bi moo ko waral dama naan Covid bi moo ko waral parce que Covid bi économie àdduna bi yëpp la affecté rawatina ñi ñi gën a néew doole donc ne la dañ naan Covid bi ne guerre bi c'est bon dos. mais c'est la raison malheureusement dafa naqari dégg parce que du lépp na du ñoom mais ci la te transaction yi feek mi ngi am ñu importe produit ko indi fii ci réew mi nii donc da am am solution solution mooy ñu retourné wu conso euh, promotion produit local transformation produit locaux consommer sénégalais nguur baa nag laax ak suñ ceeb bi ñu béy fii ak dugub ak et loolu bu ñu ko doon lekk ni tey non seulement du yàqu. yooyu ngay wax sax dafa cher. waa ah, même bu chéré euh, yokk day wàlle. yokk day wàlle tey tey tey dana. mais li nga tudd nii lan moo si yoonu guerre bi. non lan moo si yoonu guerre bi c'est parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo koy bay ñoom aussi seen dund bu yokkoo li ñuy li ñuy produit dañ ko yokk seen dund bu jafee bu ñu soxlaa lu jóge bitim réew soxla ko mu jënd ñoom li ñuy bay aussi dañ koy yéem a yokk pour nekk à niveau mais loolu moo tax man la yokk day wàlle maanaam maanaam exemple carburant bi heureusement dafa stagné mais carburant tey su yokkoon rek prix day gën a yokkuwaat parce que bu bu carburant yokk transport bi yokku transport bi nag ñoom ñooy jël marché di ko yóbbu fañ ko bayee di ko yóbbu fañ koy consommé. kon dañ ko yokk. waaw mais dama gis ne état bi hmm. na euh, bi nga xam ne moom la ñu ëpp di utiliser. Hmm. yokkul ko. Hmm. mais am na as tuuti lu mu yokk ci essence bi. waaw mais mais état baa ngi subventionné fi mu doon nii. gasoil bi. gaz ak gasoil état mi ngi koy subventionné. doole ma eggul foofu parce état mënul subventionné lépp. état bi bu amoon doole tey di am ay yeneen ressources externes wala yeneen ressources internes mën na subventionné mais barki dem bi mu bi mu jógee subventionné lu de première nécessité parce que mënu ko ñetti produits la ciblé parce que ñu koy defaree fii mais bu subventionné sucre dafa basé wu ci sucre bi jógee bitim réew parce que état dafa renoncé ci ay douanam dafa renoncé ci ay taxam ak ci impôt mais mënul subvention lu romb ñetti produit te subvention c' est dans le temps de am na fa mu fi ne nii datu subvention bi romb na bu yàgg mais ba léegi mi ngi ko maintenir l' fait des efforts exceptionnels mais c' insuffisant parce que ay moyens matul je le sais te balaa mu yokk bala muy bala muy subventionné woo nañu waxtaan ak ñun man yëg naa ko demoon mais président Cheikh si bi demee ñun la rendre compte balaa ñu def conférence moom moo war a subventionné dimbali ñu néew doole consommateurs yi waaye dooleem eggul ci subvention yi am na réew yoo xam ne non seulement dañuy subventionné mais dañuy accompagner le produit tel pays. mais mais signal la euh, même bu dee état subventionné. Mm-hmm. dafa am benn manque de contrôle boo xam ne. Mm-hmm. am na ci ci boutique yi ndax dama jàpp ne état buy état buy contrôler mm-hmm. daf ko war a commencer sa usine ba. ba si grossiste bu mag bi. ci luñ produire fii. waaw waaw ci luñ produire fii parce que subvention am na luñ subvention lu jóge bitim réew mais dama ne état. yoon la ci moom mu am droit de regard ci njëg yi rawatina les produits de denrées de première nécessité parce que ce de des prix des prix homologués état am na ci droit xool ko est-ce que am naa mooy xool ko su ko amul nañ ko joxoñ état am na droit xool parce que yow boo boo yow sa jogging bi boo demee Colobane di ko jënd ba jubóog ci ki koy jaay ci njëg yi foofu état yoonam nekku fa du ñëw di intervenir ci njëg gi pourquoi parce que c'est un produit de luxe waaye loolu bokkul ak ndax mburu état am na droit xool loolu mais nag contrôle économique mënul ñëwaat parce que dañu nekk état libéralisé marché libéralisé donc contrôle économique amatul droit ñëw mais état am na droit wut ay moyens service service euh, contrôle euh, DCI direction du commerce intérieur li ma am ci ay oto matul cinquante oto est ce que loolu jag na pour tout le Sénégal jotul doyul sax pour région Dakar. mais est ce que ministère ma ngi def liggéeyam correctement. waaw ma maanaam yi mu def nii ci marché yi di xool ndax njëg yéeg naa yéegul man su ma sañoon ay agent ñooy wàcce non moom parce que moom bu wàccee. xool ba eggal buñ gaa yi xamee ne ñi ngi ñëw sax ñu defaraat seen i bagage bu leen neex sax ñu boo nee lii ñaata ñu wax la sax duñ ko jaay que euh, euh, kii bi nu mu tudd euh, état war na am force buy wàcc ci terrain yi à la place ministre pour di contrôler prix yi aussi consommateur yi am war nañu aussi dénoncer maanaam fu ñu demee ñu wax leen jóg yoonul maanaam war nañu am numéro vert wala ñu am circuit wala canal bu ñu mën a informer l'autorité que ni ñii ñu ngi jaay njëkk-jëkk dayo parce que ñun mosuñu d'accord ci ay spéculation jënd marchandise tëj ko yor sa wantaay sa pliaan duup di xaar produit man nga génn ko jaay ngir am bénéfice loolu dafa xaraam sax l'islam tere na ko suñu réew tere na ko diine ji tere na ko loi réew mi tere na ko mais est-ce que nguur gi hmm. ni ñu tëlee ci wàññi location bi hmm. est-ce que tëleewuñu noonu hmm. ci wàññi njëg yi waaw njëg yi aussi du nguur gi moo koy wàññee da nga naan nguur gi na si ay taxam commerçant yi bu ñu defee œuvre de solidarité wàññi seen marge bénéficiaire loolu mën naa rétablir tout ci marché bi waaye commerçant du jënd perte il faut mu teg ci dara léegi nag contrôle de prix boobu noonu moom laa la wax ne bu dee prix bu dee prix de luxe wala prix yeneen yi nii nguur gi mënu ci dara prix yooyu moom da jaay nangam ki bëgg jënd bu amee jënd bu amul mu dem wuti feneen yow aussi nga wut beneen client mais produit yi nga xam ne lim naa ko sax yooyu. état bi dafa am obligation contrôle pour mu bañ a te loolu nag bu ko deful war na ko su ko defee war na ko mais man damaa seetaan damaa gis ne nguur gi dañoo seetaan askan wi si seeni jafe-jafe ci njëgu yokk yi ak manque de contrôle dama dama jàpp ne loolu moo ci am waaw loolu mën na am tam man du ko weddi mais loolu bu amee nguur gi euh, mooy na li ko war parce que dañu leen a fee teg ngir ñun xëyee ko gont ci soxla sénégalais yi waaye nag su fekkente ne dem nañ ba mënuñ ci dara na ci loo xam conjoncture internationale moo parce que marché gis nga am na lu nit fàtte un commerçant du jaay personne même marché produit boo gis mën a lang mën a mën a xas njëg day wàcc waaye bu commencé rare parce que nit ñëpp ko soxlandoo njëg day yëg loolu moom c'est une loi universelle nag yow ko yaa ma gën a xam mais lii nga wax nii nag mhm. moom laa remarqué wul ci marché bi ndax xam ndax remarqué wu ma am na yoo xam ne bu ma demoon laaj ko si marché bi ton mm, mm. boutique boo dugg ñu ne la am na ton te ton bi dafa yokk su doon tey boo laajee benn boutique di nga war fukki boutique ñu ne la amul sax mm-hmm. nga mën ko d'accord mais tey boo duggoon tey ci marché bi mm-hmm. boo ne soble boutique boo dugg ñu ne la soble saag ni pomme de terre baag ni loolu laaj te presque am na fi mais dafa yokk. waaw kon li ñu ko jëndee moom moo cher. waaw loolu mooy problème bi nag lu xel nangu. waaw mooy produit bu bu amul. de de de de Touba bi ñu bay jaay euh, saaku soble cinquante mille francs. fekk na dafa manqué bëritu. waaw mais su doon xas njëkk dana wàcc ci saasi. xam moo moo tax produit bu fekkee ne néew na ñi ko soxla bari loolu mooy l'offre est inférieure à la demande la demande est supérieure à l'offre. loolu nag bu doon bu doon am na. Hmm. xel dina ko nangu comme li nga wax keroog Touba mais na mais am na mais ay cas la ah, waaw bu dee am ay cas nag yaa la règle n'exclut pas man sañu àll damay dugg ci marché bi man bu ma laaj boutique bu ma bu ma ma laaj meew ñu ne ma meew a ngi nii meew yi dañoo bari du benn meew kese dañoo bari waaw dama ne boutique bu ma laaj meew ñu ne ma meew xam nga man asi àll damay dugg nag waaw kon waaw léegi nag boo laajee meew ñu ne meew am na kon njëg yi meew boobu nga dafa am ay difficulté parce que soble dafa am production locale waaw mooy mais yeneen njëg yi li ko yëkkati du conjoncture bi moo koy parce que produit importé la suñ ko importé mu ñëw seer il faut nit ñi tekki dara na ngir ngir dund d'accord naa loolu nga wax bisimilah xam nga man lan laa d'accord hmm. su doon tey dangaa dem ci marché bi boo laajee boutique boo nga laaj fukki boutique ñu ne la awma suukar hmm. suukar mën naa yokk. mais boo demoon ci marché Castor bi fukki boutique yoo laaj. mën nañ laa wax na la am nañ suukar. wala am nañ produit bi ngay bëgg. seen seen i njëg ñooy ñooy du sore de. waaw foo ci laaj nangam lam lay wax boo demee ci keneen. du sore waaw day yokk nag. non déet yokkul xëy da nga naan dafa stagné. njëg yi non non. kilo waaw waxuma la suukar quoi dama la jox exemple. waaw produit bu man doon boo demee ci marché bi nga laaj kii laaj kii laaj kii produit prix yi ñuy wax du sore laa am na ci marché mais njëg gi moo egg foofu. léegi nag lu mu gën di raar njëg yi gën a yéeg. d'accord xam nga sëñ la de euh, euh, di la laaj. ci liberté de ton parce euh, de ton si ñëw. Ah, ndax ah, waaw ah. tey. egg sa question xam nga boo déggee man. Hmm. damaa bokk si ñuy jàpp ne guerre Ukraine bi ak Russie. Hmm. am na produit yoo xam ne c'est hmm. normal mu yokk comme par exemple tey ciment ñii ne ciment bi dañ koy yokk. ci ci charbon bi nga xamante ni presque ñoom dañ koy jëggaani te presque mooy matière première boo xamante ni maanaam mooy li si ëpp solo presque. waaye cimenterie yooyu. 2019 avant coronavirus bi ak guerre bi. saako téno ciment bi mu doon jar soixante mille. ñoom ñu yokkoon ci cinq mille francs mu nekk soixante cinq mille. yokk googu noonu. fan la fa euh, maanaam fan la tege woon. fan la tege waaw waaw léegi euh, xam nga aussi prix de vente égal prix de revient plus marge bénéficiaire prix de vente égal prix de revient plus bénéfice. looy jaayee cinq mille. c'est parce que diggante la quatre mille cinq cent waaye il faut nga teg ab téeméer mos dara. léegi nag cimenterie yooyu su fekkee ñoom ñetti seen prix sorewul ça veut dire que prix normal la mais su fekkee prix yon yonul maanaam bu ñu dee jaay nii kii dina bu kii dee jaay 5000 kii dina wàññee jaay 4500 keneen bu ko defee parce que commerçant ci gàttal amul droit amul intérêt jaay lu seer. mais est-ce que am na yërmande. non xam nga yërmande c'est relatif dama ne commerçant ci boppam. mais dañ leen di tuumaal loolu si yàlla. waaw mais bu fekkee ne ñoom ton nangam lañ koy jaay ça veut leen dikkee lañ ca teg mooy seen marge bénéfice dama kenn amul intérêt jaay jaay parce que booy jaay lu seer ki jaay lu yomb bu fekkee même qualité a jeexal. mais ñett bu dee entreprise ciment yooyu ci seen biir na. non loolu na na ko nguur gi tas na nguur nekk li ñuy sa morom di jaayee ça veut dire que lim la dikkee loolu la dikkee sa morom mais fekkee ne am yow ñett ñetti cimenterie am na ko xam ne nii lim ko dikkee 4000 moom dikkee na la 4000 boo neexee nga da jaay 4250 wala nga jaay 4100 francs sax léegi nag su fekkee ne dañu lëkkaloo seen biir kooku nguur gi moo am autorité tas. tas lëkkaloo googu. mais xam nga tey tonub ciment. corona amul. guerre amul. nga yokk 5000 xanaa boo yokkoon 1000 francs sax xel man ko nangu mais 5000 dafa bëri. damay delluwaat damay delluwaat ne la. prix de pris de vente. égal prix d'achat plus marge bénéficiaire moom su fekkee frais yëpp su ko defee mu dikk ko lii mu teg ci marge bénéficiaire lii. te loolu boo xoolee ci benn cimenterie bu def loolu ça veut dire bi daal bëgg a réel su fekkee complot seen biir na na ko nguur gi tas loolu laa ci mën a wax commerçant nag bu jëlee tonne boobu yóbbu ko ci bitam di ko jaay dana ci teg 1000 francs par tonne. d'accord mais euh, suñu àll euh, yéen euh, commerçant yeeg yéen secteur privé bi daal maanaam ci gàttal yéen production local yéen est-ce que ni ngeen ci war a sooboo dëgg sooboo ngeen ko si ndax mos naa waxtaan ak directeur horticulture mbayum noor daal mbayum euh, soble seeg euh, nangam sangam mu ne ma mos naa waxtaan ak secteur privé bi pour ñoom ñu investir ci lu jëm ci wàllum infrastructure de conservation ay chambre froide xeer yi demee noonu ndax yéen dugal ngeen seen loxo dëgg ci côté boobu. Abdou Khadre ñun ñooy première organisation bu am ay partenaires pour réaliser ay entrepôts frigorifiques ay chambre froide laajal directeur ISRA wala nga laaj ko Amadou Abdoul si directeur ARM dem nañ ba def présentation fii ci ISRA boo xam ne nii pare nañ mais unité industrielle unité infrastructure minimum un milliard deux cent millions la minimum benn te bi ma bi demee ARM gëstu wax nañ ne Sénégal sol na ci quinze mais nekkuñu ci benn place dañu tasaaroo en fonction lieu de production ñun suñu yéene moo doon fa ñuy bayee ñu def entrepôt ci seen wet nga xam ne booy bay rek stocké ko fa di xaar jamono changé du du pour spéculation mais pour xaar ba bi jeex comme ni ko waa Sénégal ñi amee waaye nag loolu day laaj suuf sa noo ca jotee collectivité locale ñoo la ko jox mais surtout financement am accompagnement financement pour réaliser loolu. boobaak léegi nii état bi am na montant bu mu yëkkati jox ko ministère du commerce pour ñu réaliser premier unité industrielle premier unité entreprise ba fi ba léegi amagul lii ma lay wax nii a naa ko devant madame madame le ministre loolu kon UNACOIS te que UNACOIS dafa am ay partenaires extérieurs am nañ partenaire russe donte ñoom ñu ngi ci guerre ñun dem nañ fa man def naa fa 12 jours Moscou ñoom aussi ñëw nañ ñëpp mën nañ loolu barki démb toog ak benn maire bu nekk benn ville Maroc boo xam ne mi ngi naan ma Maroc bu ngeen fa ñëwoon non loolu mais ay ay culture sous serre sax fa maa ngi fay waaj dem xam naa peut-être après Magal Touba donc pour liggéey ci mais aussi leen nit ñi war a xam commerçant dafa am agriculture am producteur am transporteur am kenn bokk la sa morom commerce moom du produire nit day produire ba eggal mu jël ko jaayaat mais bu ñu demee nag bu bëgg a dugal suñu loxo ci industrie wala ci infrastructure cest que ña ko war a def dañ ko deful ñu ñu jéem ci dugal suñu loxo mais bala ñu ci dugal dañ ko maîtriser wut ay ingénieur ñu liggéey ci def étude de ñu xool rentabilité bi wut financement bi c'est pas c'est pas facile te loolu su la état jàppalewul doo ko man su la état jàppalewul doo ko man léegi nag marché bu jam ñaajo na yéex na deux ans ngi ni ñu tëj ko ñu ngi doon ubbi bërki dem envoyé nañu courrier dañuy wax magasin ya fa des pour ku bëgg a jël mais ñu ngi xaaroon mu démarré bu démarré nag man man na damaa jël ay pour produit yu jógee bitim réew. ñëw stocké ko. Mhm. ba fekk ma gis client bu koy jënd ma jaay ko et cetera. waaw jërëjëf euh, Serigne Alla yow yaay euh, directeur exécutif bu UNACOIS euh, Yeesal léegi Sénégal dañoo gis ne Sénégalais yi fi mu ne nii waxuma la njëg yokk yi waaye ñu baree baree bari seenu tumuranke ak seenu toroxtaange ma ngi gën di yokk. mu mel ni ah mais. Ah, mais toroxtaange dafa ëpp nag. mais mais si. ma <laughs> wax dëgg yàlla am na bari na ñu am ay jafe-jafe lool mais <laughs> xam nga ci biir ndox bi rek toroxtaange ba léegi kenn mënu laa génn inondation mais yàgg-yàgg ndox mi dana kii cest à am na ñuy faatu ñoo xam ne ndox mi ngi rey ay nit ñu bëri ay centaine de personnes yeneen réew mais lam fay taw taw ko fii waaw d'accord mais bu loolu egguñ fa nañ ñaan yàlla bëgg nañ muy taw taw ñun bu ñu sañoon muy taw douze mois sur douze mois nga xam ne toujours mbay dana am. récolte dana am ay milliards lañ ci dugal te ba léegi saafara amu ah. ah, ci am na ci luñ ci def de am na lu des nag. d'accord ah. euh, jërëjëf euh, Serigne Al euh, Dieng léegi ñu ñëw ci situation politiku réew mi léegi dañoo gis ne Benno Bokk Yaakaar dafa am lu leen dal loo xam ne presque mën na ñoo wax ne bu njëkk la ci senegal maanaam. yëngu yëngal bi nga xamante ni te opposition yëngal na ko Benno Bokk Yaakaar ci des législative yi. ba nga xamante ni fi ne nii sax euh, seen député yi euh, dégg naa ñoo ngi ñoo ngi sali pour ñu denc leen foofu bu ko defee pour kenn échappé leen di <laughs> ñu mën a dem assemblée nationale mais suñu àlla hmm. euh, assemblée bi hmm. ak doole ji doole yi ni mu xawee tolloo ndax avantage la ci réew intérêt Sénégal léegi tegg naa kasketu directeur exécutif naa ko teg ci suuf sol kasketu président UFC ak kasketu citoyen déedéet lu si génne non non citoyen la. non citoyen non citoyen la. buy wote di wote. mais ba pare diriger mouvement bu ñu wax UFC Union des forces citoyennes. ma bokk ci majorité bi di jàppale mag Sall aussi di ko assumer. Mm-hmm. waaye nag am naa sama liberté boo xam ne nii su ma jubawul ak moom dama koy bind lettre ne ko président jubawuma ak yow ci li dara. wala sax ma jàkkaarloo moom parce que mos naa may ñaari yoon occasion yoo xam ne dañu jàkkaarloo ñu bokk añ. Mm-hmm. bokk ma wax ko sama xalaat ci réew mi loolu naa ko te du ma su ma koy wax du ma ci jiital sama réew mi laa ci jiital un. opposition bi am na def na avancé avancé bi ñu def aussi te caagi sax nit ñi dañoo war gannaaw Macky Sall wala majorité bi mais c'est parce que opposition bi ñu def stratégie ba gagné ko ci wàllu député parce que intercoalition bu existé wul juridiquement mais dañ ko def stratégie ngir raw gàddu bi fa lañ ko gagné mais bu doon loolu te su fekkoon ne parce que normalement intercoalition bi dafa waroon a am bulletin boppam voté ñu reconnaître ko mais loolu amul donc ñoom ñaar huit listes moo am mais bañ demee mu na sept listes moom parce que ñaari listes ñu ànd nekk benn donc foofu lañ ko gañee ci raw gàddu mais bu doon loolu du ñu ëppale Macky ay député am nañ avancé ba jaar ba ba ba jege ko teewul Macky Sall moo jiitu mu tegu euh, mu tegu euh, euh, kii nu mu kii Yewwi mu tegu Wallu léegi nag avancée démocratique la certes mais aussi effet réseaux sociaux yi la parce que réseaux sociaux dañu ci joué bu bëree bëri boo xam ne ni ni ko opposition maîtriser surtout xale yi jëriñoo ko waa pouvoir maîtriser wuñ ko noonu loolu am na maintenant nag. Euh, est-ce que du Macky moo naqaree défendre rek. non Macky man naa ne naqaree défendre Macky Macky aussi neex naa défendre parce que bari na lu mu diggee lu mu def mais bari na lu mu diggee lu mu deful mais loolu moo mooy àdduna donc. mais lan moo tax yow sëñ àll ah ma ne sëñ àll Dieng yow yow nga bëgg a tuumaal réseaux sociaux yi ci euh, élection législative yi yow nga bàyyi fi dund gu métti gi bàyyi fi manque de transparence gi nit ñi wax bàyyi fi corruption bi. Euh, yooyu yëpp nga bëgg ko fee bàyyi bëgg bàyyi fi inondation yi bëgg ne réseaux sociaux yi. mais kuy lim doo matal. kuy lim kuy lim doo waaw li la amal solo ngay wax yow li la amal solo. mais man li ma amal solo mooy réseaux sociaux ci la mais dund gi métti gi inondation tout ça ci la ak jamono ju métti joo xam ne Macky tegu ko réew mi. troisième mandat non troisième mandat egguñ ca. mais dama la askan wi laa wax est-ce que bokkul li tax ñu sanctionné. est-ce que est-ce du opposition ñoo

léegi fii doole ji dem nañ ba tolloo ba nga xamante ni njiitul assemblée nationale sax Macky Sall fii mun ta wax ne moom mooy ki koy jiitee candidat mooy nekk président assemblée nationale gam-gam le tolloo boobu laa la wax. Ah, mais mais dama la wax cause bi. waaw cause bi waaw waaw waaw non njëriñ non non non conséquence bi ma gëstu parce que législative tàmbaleegu ndax installé guñ ko xaw ma lu muy jur ëllëg mais euh, euh, député am nañ avancé euh, opposition yokku député majorité wàññi parce que jógee 150. Euh, jóge jóge cent quarante deux xaw dem ba quatre vingt trois ça veut dire kay wàññeeku kay. Ah, le constat général. waaw xam nga tolloole bi ñu taxaw seen doole xawee tolloo. waaw ndax jàpp nga ne lu baax la ci réew mi. no mën naa baax ci réew parce que mënaguma xam ndax aussi ñu il faut ñu xool législative ni muy déroulé te boobu matul deux ans lay def président bi ñëw ëllëg xuma ko ne bu ko neexee tas ko bu amee deux ans donc damay xaar lu muy jur mais constat général bi mooy opposition bi avance nañ majorité bi reculé nañ léegi nag à part de lundi ci la ñu xool am et puis depuis am nay profil nañ xool ba njëriñ lay xam nga mënu mënuguma ci wax parce que xamaguma seen prestation xamagu ku nekk la nga am na ñoo xam mu xawma leen sax am na ñi ma ci xam ak sax ñi ki majorité parce que majorité seen liste euh, kii euh, kii moo jàll parce que ñële ay ñële ñële ñële suppléant xaw ma ci kenn parce que bu doon ñi da xam de ci faal xam diw xam diw xam diw non am yaakaar ci lan. Oh, assemblée bi moom. non assemblée nationale benn ñoo koy jiite. mais non am nga yaakaar ci mu dox doxin bu baax laa ah am naa yaakaar ci dox baax parce que démocratie moo ko imposé dama ci am yaakaar. mais wóoruguma. waaw ah. ñoom ñoo ñoom ñooy prouvé ndax sama yaakaar dana tas wala du tas ñoom ñoo koy prouvé. d'accord mhm. euh, lu jëm ci assemblée nationale bi. ak euh, ñu ñëw ci gouvernement bi. waaw ah, gouvernement gouvernement bi ñu bëgg teg. waaw ah, gouvernement moo xam nga Macky Sall moo ne woon premier ministre dindi projet d'urgence mujj ñu indiwaat ko procédure d'urgence boobaag léegi sampagu ko xaj na moom moo am moo am moo raison bi. xaj na moom moo am raison bi léegi parce que parce que moom. waaw euh, parce que parce que moom mooy euh, mooy président la moom la yoon may mu tëf gouvernement il faut mu nommer premier ministre ba nommer premier ministre déglu tuuti balaa mat trois jours gouvernement bi pare ñu xool ñu ñu séntu ñu liggéey. mais liggéey. dem ci soxla doomu adama yi li ñu waroon a faj te fi ko ñu gaaw ci ah 18 mois moo leen dese en tout cas fii ak 2024 mais obligation la ñu ya ñu am ci ñoom yaakaar ñoom aussi da am ci ñoom parce que xamuloo kan ak kan la ñu ah, xamuloo kan lay nommé premier ministre xamuloo. koo jàpp yow doo ci wax man dana doon góor ma doon jigéen. Mm-hmm. waaw. dina doon góor ma doon jigéen. mais loolu xam nañ ko. waaw léegi nag laaj na ma tontu naa la kon léegi tontu naa li ñëpp xam. waa léegi gouvernement bi ñuy teg nii. Ah. est-ce que jàpp nga ne euh, fii ak deux hmm. mën naa saafara euh, jafe-jafe yi ak toroxtaange gi Sénégal yi dund. man nanguwuma toroxtaange toroxtaange dafa for bu ëpp am na jafe-jafe yu bëri yu Sénégal yi dund nguur gi dañu leen di fas euh, dañ leen di fal ngir ñu saafara. problème mu Sénégalais yi. Euh, am na lu ñu ci def am na lu des. li leen dese ci 18 mois aussi ñoom su ñëwee obligation la ñuy xëy di ci compte. ngir wàññi coono yi Sénégalais yi mënuñu ko jeexal. waaw coono Sénégal moom ñu mënuñu ko jeexal Macky Sall mënu ko. mais xanaa kon nañu bu buñ sampoo buñ sampoo nañu wàññi rek. xam nga maa lay wax toroxtaange nga dëkk si dëkk bi nag. xam nga ah, d'accord waaw dafa rëy. dama ne toroxtaange dafa rëy. nit ñaa ngi dind ay difficultés yu metti yàlla na ko suñu borom saafara nguur gi dañ leen a samp ak assemblée ngir ñuy xëye ko gotti ngir saafara soxlay Sénégalais yi am na luñ ci def am na lu des yaa ngi nii dama ne dama ne am na ñu ci def am na lu des. waaw xaar ma la toroxtaange gi man dama jàpp ne ñii ngi si biir ndox mi ñii location bi cher na ñii dund gi métti na ñii feebar nañ mënuñoo fajo ñi ngi ci biir ndox yi. am na réew yoo xam ne ay nit a faatu yu bëree bëree bëri ay nit faatu yu réew sax duñu leen mën gis. ndax ay torrent bi bi ma la xamee woon. Mhm. ba léegi dañul ba léegi dañul damay wax li ma sentir rek li leen ci man laay wax. voilà mais xam si jafe-jafe lañ nekk. loolu laa wax mais boo ne torotaange torotaange dafa ëpp. torotaange c'est autre chose. mais jafe-jafe xam c'est la misère. mais mi. non mais misère moom ci réew mi. ci ñenn mais du ñëpp. mais waaw mais ah, moo tax ne torotaange du si ñëpp. am suñu bari nañu torotaange lañu. wax yàlla ñaan nañu yàlla ñu ñu génn ci. xam nga aw as. waaw waaw d'accord ñaan nañu yàlla ñu génn waaw léegi. Euh, gouvernement bu euh, bu yees bi ñetteelu mandat bi. Hmm. président Macky dañ koo laaj fan yii ci Hollande. benn journaliste bu Hollande moo ko laaj. Euh, mu ne ko man daal la ma tontuutoon comme sama réew laa ko tontuwul du ma ko tontu fi. ñetteelu candidature Macky Sall. lu sa xalaat. man d' accord ma Macky Sall di déposé pour troisième euh, candidat pour pour sa prochaine candidature d' accord ma mu déposé. pourquoi parce que man ak moom bokkoon nañ ñi doon xeex Ablaye Wade maintenant nag diggante bi dafa am référendum référendum bi wax na nul ne peut faire ñaari mandat yu tegaloo kenn du kenn du teg lu ca topp waaye nag mandat ñaata at la sept ans la wala vingt ans la wala cinq ans wala un an constitution bi génnewu ko ba léegi donc Macky Sall am na droit présenté wu ndax man am na droit présenté wu comme yéen ni nga amee droit présenté wu man am naa droit présenté wu keneen am na droit présenté wu Macky Sall am na droit présenté wu mais man su ma sañoon du ko def su toogoon man damaa ko président bu ma du ko def. ah loolu kon kon nee ne nga Macky Sall fonkul kàddoom. ah fonkul kàddoom kay. waaw waaw man daal bu ma sañoon. du présenté wu. mais waaye am na droit présenté wu. mais su ma sañoon du présenté wu mais am na droit présenté wu. mais sëñ Alla. Mhm. Euh, yow Macky Sall yow xam nga ne discours yi mu fi defoon. Mhm. avant 2019. moralement rek warutoon a wax sax. waxu waxu waxu ñetteelu mandat wala. bi biñ ko mujjee laaj daf ne nii wuy ni non. waaw léegi loolaa jàppagoon ba léegi bis bu ne bëgg naa bëgg naa man boobaa naa am sama benn réaction. boobaa man man yow da nga jàpp ne Macky Sall nit bu fonk kàddoom la. non dama waaw man jàpp naa ne Macky Sall nit ku fonk kàddoom la waaye nag fonk sa kàddoom. def li wax di si li wax di si génn yow sëñ Alla yow dama ne dama ne dama ne. ma ma posé question da nga may ma man man faruma Macky Sall ci loolu dëgg dama ne la. dama ne ma expliqué dama ne wax def ko yàlla rek moo ko man mais wax yéene ko sëñ Cheikh Mbacke neen doomu aadama mën na ko maanaam li nga wax muy loo yéene léegi moom li mujj wax loolaa jàpp su fekkee am na lu mu njëkkoon wax mais li mujj wax mu mujj li mujj wax moo mujj dañ ko jàpp ba fekk may gis sofaan ba man dégg ko moom ne bëgg na maa nekk candidat d'accord bis bu ma déggee wax ko nag boobaa na nga ñëw fekk fa ma ne ma wax la sama xalaat ci loolu jërëjëf euh, sëñ Alla yow yaa jiite UFC euh, euh, Union Force Citoyenne mm-hmm. yow nga bokk ci benn bokk yaakaar est-ce cër mm-hmm. ak gëdd mm-hmm. ak àndu nawle bi Macky Sall war a ànd ak Benno Bokk Yaakaar ak yéen seen kuréel gii. ndax am na. am na lu ci am bari na lu des man personnellement euh, Macky Sall xam na ma xam na UFC xam na UFC fi mu bokk day récemment sax dañu bokk ci lañu ñuy wax GRAF grand rassemblement des alliés de la première heure moo ñu njëkk jàppale Macky Sall ba mu toog ba léegi ci laa bokk te changé wu ma. ba feeg mandat bi jeex su ba ma joxee cër doo ko yëg parce que lu ma la ko wax. man bu fekkee jox na ma cër yow doo ko yëg parce que du ma la wax waaw léegi man ndox jox na ma cër xam naa ndax jox na ma cër ñi ma jaay ñi ma àndal xam nañ jox na ma rek am na ah, waaw foo ma ngi tudd Soxna Maguette Diop am nañ président des femmes mi ngi tudd Adja Binta Sarr mais dama ne la li ma defal du man maa koy wax fii ci rajo bi. xam ma maa ñëw rek maa ñëw wala li mu defal UFC boog li defal UFC du maa ñëw di ko wax ci rajo bi un deuxièmement ak Benno la mu waxoon ak Benno lu ci bëri def na ko du man ne def ne lépp de mais lu ci bëri def na ko parce que daf ne woon gagner ensemble gérer ensemble balaa léegi mi ngi gérer ak ñoom. ñàkkul am na ay frustration ci PIT ci LD ci BS gi yëpp ak AFP am na frustration mais loolu engagé na ñoom engagé man engagé ma man je reste fidèle à Macky Sall waaye ah, est-ce que bari na sénégalais yu bokkandoog añ Macky Sall ma sañ a wax ci kanam ne ko ma président nga baal ma de dam ñoo woo ngir nangam waaye soo ma ko may man ci nangam laay wax loolu wax naa ko Macky ñu toog di añ dama lay expliquer rek. am na sax waaw kon maa ngi maa ngi bàyyi nga poser question boobu. d'accord léegi yow da ngay jaawale ñaari casquette yu bokk. bismillah. yow da nga jiite benn da nga jiite. UFC UFC. union des forces citoyennes. Euh, moomoo ko ay nit ñoo si nekk. man maay président bi depuis. même boo nekkee six ans waaw même président bi. Ah, ah, ah, dem nga demoon ci président nag seen añ ak seen relation yéen ñaar. Mhm. kooku àll jeen la. non non UFC laa fa demee woon nag yaa ngi UFC lañ ma wooyee foofu. lañ la wooyee foofu. waaw présidence sama tur àll jeen président UFC moo ci nekk ba ñooy woo foofa. ban du ñaar du ñaar non du ñaar du ñetti man man bu may dem USS fekk dama tur UNACOIS USS laa fay demee ëpp na USS sax moo jiitu UNACOIS yeesal. bu doon da nga dem USS ci ci ndaje mu ñu wootee waa Benno Bokk Yaakaar gépp ñu mën a. loolu loolu tax na kon déggoo li ma dama la dama la loolu bi muy am du man kese ma ak moom dañ fa nekkoon ak ñeneen. waaw dafa nekkoon ak ñeneen ak waa Benno ak souvent waa Macky 2012. mais amul amul audience privée bu loolu amagut. ok voilà c'est ça. léegi. Hmm. Euh, ëllëgu EFC. Hmm. yéen dañu leen créer parti bi pour créer. parti wala de du parti mouvement citoyen la. da ngeen créer mouvement pour créer mouvement wala da ngeen créer mouvement pour jot ci réew mi. waaw léegi du man maa ngi dund ak yow nii. Ah. da nga xam ëllëg lu may laaj. ëllëg mën na maa bokk ci list soxla naa député ëllëg mën naa bokk ci liste ne bëgg naa ne président de la république donc xamu ko ci dara buñ ci egg da nga ko xam UFC créé wuñ ko ngir mu lang ci bennoo wala bokk ci. moom lay niru nag moom lay niru. fi mu moom lay def. mais xam nga ëllëg lu muy def nag suba ci ngoon man xam mais mais mais est-ce que nga ne. Euh, candidat yow UFC dina am candidat 2024. loolu waa UFC laa koy laaj. bis bu ma doon naan candidat man waa UFC ñu ma sam mais man mënu maa sam sama bopp. léegi nag lan lan bëgg ko. non buñ ci àgg non man lu lépp lu ma Sénégalais dénk ñeme naa ko liggéey. d'accord léegi euh, taxawaayu opposition bi. yeewi askan wi. Euh, seen taxawaay noo ko gisee par rapport seen diggante ak Macky Sall ñenn ñu jàpp ne mbañante moo si am. bon euh, adversité moo war a am et non inimicé am nañ droit nekk adversaire ndax ñoo bokk réew mi te ku nekk njot naa ne lu baax nga la bëgg nga la bëgg waaye opposition bi ni muy am na loo xam yenuwul maanaa benn aussi ni muy doxalee am na loo xam yenuwul maanaa opposition bi ni muy doxalee réseaux sociaux yi saaga yi ku bokk ci bennoo baaxu ku bokk ci opposition yaa baax loolu am na ñu koy doxalee. tamit dañuy saaga. lu ma wax sànq. lan laa wax sànq dama ne la am na loo xam ne nii man ñëwaguma ci benno de dama ne la am na loo xam ne nii ñu koy doxal rafetul commencé ci opposition réseaux sociaux yi saaga yi mais. loo commencé woo fi nga bokk. non mën naa commencé parce que am na loo xam ne nii li ñuy doxal ànduma ci ci biir benno am na loo xam ne ñii bu leen saaga sax bu ñu leen fayu encore waruñu nekk di di di def jëf yoo xam ne ni dañ leen accuser ay corruption et tout ça kooku ko war a bàyyi fekkee ñu ngi def mais opposition bi aussi seen discours rafetul. ko opposition bi ak ñi ci ànd ñëpp ak ñi leen di waxal ci wax sa xalaat ku bokk ci benn baaxoo ku bokk ci ñoom yaay héros lu ñëkkul Pape Diop te Pape Diop il avait le bu ko neexoon toog nekk non inscrit su ko neexoon dem ci dem na ci pouvoir ah, am la engagé ak parti ak coalition am mais léegi bu ñëwee ci yow. nga nga def ko héros mais bu demee fa yow même yow mi sax Abdou Khadre yow bokk nga ñi nga xam ne da nga daan wax ne Macky Sall du woote élection locale mukk yow daa nga ko def daa ko defal non waxuma législative locale laa la wax. da nga naan du ma amoon ju moo bële. waaw da nga naan Macky Sall du woote élection mais local ah, da nga doon xam déglu ma rek da da koy toxalaat toxalaat toxalaat. xam nga dégg naa la ba tey na ko ba tey. Oh, mujj na ko def. mais yow boo ko woon ci ñi nga xam daa ko yow gëmoo woon sax date boobu bi nga ko choisir. yow yow ba nga mujjee yàggul yow yow bi mu non waaw mais mujj bi taxuloo ko nag mais dama ne ba mu yow bi ma mujjee invité sama bureau nga ñëw booba dàkku booba da nga doon Macky Sall du woote élection locale waxuma législative la législative barki démb la mais local bu yàgg ba. mais Macky moom mosul respecté calendrier a non non dafa am lu ko imposé woon Covid bi ci la. ak aussi opposition bi parce que opposition ñoo ne woon duñu def te càmbaruñu fichier bi ñoo ne woon duñu def te te te amuñu euh, ay kii yu leer. te ba pare jala bu ñu fës ko du ñëw ne jala ba jala caaxaan la te mujj nañ ñëw di di am problème parité ak parrainage. te foofa foofa lañ ko waroon waxtaan. d'accord léegi question bu mujj bi mooy blocage bi réew mi bloqué économiquement Sénégal fi mu ne dafa nërmeelu ci ci wàllum koom xanaa loolu moom ñemoo ko weddi nu ñu def ba ba ba jugaat. non seulement dama ko weddi mais maa ko gën a yëg ñëpp wala suñuy membre ñoo gën a yëg ndax ay acteurs lañ tey bala nga ko xam kii liggéey sax moo gën a sonn kii liggéeyul parce que kii liggéey ñu am ci yow yaakaar mbokk yépp njaboot yépp <laughs> man démb ak tey li ma joxe ci paas màggal xaw nu toll waaye na ndokk maa koy joxe mais san séntu ma ko ci kenn mu jox ma ko donc dama expliquer ne économie réew mi dafa sooxe responsabilité partagée la bitim réew ci la acteur yi ci lañ Macky Sall ci la assemblée ci la bailleurs ci la réew àdduna bépp jaxasoo mais responsabilité Macky wax naa ko léegi ba égal am am na ci ci la. parce que suñu réew mi du dundalul impôt ak taxe. te mën nañu wut ay ressources fenn xanaa yaakaar yaakaar pétrole bi suñ ko ex war a exploité mu war a jur xaj na 700 800 milliards par année man naam yëf yi dañu dañu changé boobaa. jërëjëf euh, Serigne Alla Dieng ñu lay sant la la gërëm. yal na yàlla dolli sutura barke Xaadim Rasul ak safar jàmm. jërëjëf euh, Serigne Alla Dieng moo koy moom la ñu invité woon mu nekk directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal nekk tamit euh, njiitul mouvement UFC Union Force Citoyenne moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.